Salam mbokki Internauti, salam Salam Wadadifor, salam Salam Wadakar, Dakar Salam waa Sénégal Salam alaikum àdduna euh, dellusiwaat nañ ci une émission bi nga xamante ni moom Samagor euh, sama euh, c'est une émission qui parle de tout ce qui est problématique dans notre quartier une émission qui invite des artistes des humoristes chefs d'entreprise entre autres à travers des débats d'idées avec des thèmes choisis bien sûr euh, sama gox euh, parfois nous nous intéresserons totalement aux associations aux structures qui font un travail méritoire de citoyenneté dans les quartiers et que cette rencontre aboutira toujours sur un débat d'idées autour de l'innovation, du civisme et du développement. Euh, cet amalgame permettra peut-être à l'émission de s'implanter durablement, voire même de se transformer sur plusieurs formes ou plusieurs facettes. Tainak, nous moy deuxième numéro de notre émission sama gox sama gox sama yitte ñu war ci dalal ay gan car macha allah dootuñu leen présenté fi nga xamante ni moom mooy Dalifort dootuñu leen présenté fi nga xamante ni moom mooy Dakar wala sax fii ci réewum Sénégal euh, à ma droite da ngeen di am ki nga xamante ni moom mooy euh, Moussa Ndir euh, Moussa mon ami mon frère di président amical bi ñu duppee les jeunes de la cité kon moom tey dafa nekk suñu gan. à ma gauche ngeen am également ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Guèye Mbaye Guèye su ma koy wax souvent gars yi mbii lañ gën a xam bon parce que day dem ba tur daal di réer donc mbii moom it euh, dirigé wala nekk président association bi nga xamante ni moom mooy euh, euh, nan lañ koy tuddee sax association bi mu ngi tudd Parcours Events Parcours Events tey ñu dalal président ñu war waxtaanee li nga xamante ni moom mooy lépp lu nga xamante ni moo soxal Dalifort

parce que vous nous parlez de Samako, Samiyité, et que nous, nous habitons dans ce commune de Ktigorbi, donc ce nous là, en quelque Je suis là en tant que président de l'amicale des jeunes de la cité AJC. Comme le disait le principal de l'école Saint-Adalifort, la cité en grec, c'est un quartier. Mhm. C'est quelque chose qui englobe plusieurs cités. Au mhm. moment passé, on l'appelait amicale des jeunes des cités. Mhm. Il nous a fait savoir que la cité en grec veut dire ville. Donc, réintégrer ça et créer JC Amicale des jeunes de la cité. Donc la cité castor forces armées, la cité marine, la cité mairie et la cité gendarmerie. de mhm. Voilà, tous ces secteurs de groupe, l'Amicale des jeunes de la cité. Et je suis là en tant que président de l'Amicale des jeunes de la cité. Et que merci vraiment Je salue aussi la chaîne DAF TV, qui est une chaîne locale mhm. qui nous intéresse aussi beaucoup merci beaucoup Moussa Dir, euh, euh, comme nous dit, le président amical des jeunes euh, des cités de la cité nous ma à à ma gauche remercier contentement ci invitation nous en tant que président d'une association dénommée Parcours Events. donc di am contentement tamit di nuy waa DAP Vision ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo coiffé journée bi mm-hmm. xam nga di di leen wax di leen jëfal parce que gis nañ seen liggéey ci affaire bi mm-hmm. ñoo tamit gis nañ seen liggéey ci commune bi que ça soit mu nekk commune Dalifort que ça soit mu nekk ci yeneen euh, commune euh, di la wax daal kontaan nañ trop trop trop trop di teewee euh, événement bi ci turu waa parcours events en tant que président Euh, ñi nga xamante tay bi mu leen invitation mhm. parce que notre euh, association dénommée Parcours Events est un cadre unitaire et solidaire regroupant des jeunes dont l'objectif principal est de contribuer au développement de notre localité. Très euh, en même temps, et de promouvoir le talent des jeunes à travers des actions socio-culturelles. Ok. pour te tamit toute association euh, yaa ngi ñaan euh, naka ngay xoole sa développement wu commune sa développement wu localité ak euh, lépp li nga xamante ne daal bëgg nga mu coiffé sa réussite commune daal. très bien ci am contentement di wax merci beaucoup. merci beaucoup Mbaye Guèye yaakaar naa ni kon rek wuy si na li nga xamante ni wax naa ko sama introduction. que ni parfois dañuy intéressé wu ci yenn association yi nga xam dañuy def benn liggéey bu méritoire de citoyenneté yi euh, ci quartier yi parfois dañ leen di rencontré waxtaan ak ñoom pour rek euh, fexe ba émission bi nga xamante ni mooy sama gox sama yitte nekk émission boo xam day laal fépp dina laal sport dina laal santé dina laal ci li nga xamante ni mooy mbirum social ak lépp lu mu munti doon même ci diine ji sax dinañ ci waxtaan bu baax a baax parce que nag ñu partager lien bi ñëpp mën a seetaan dara leen rek et puis bu leen fàttee activer cloche bi pour lu ñu ci dugal rek ñu aviser leen ko ngeen mën ko seetaan euh, ci mbay laay delluwaat directement parce que pratiquement moom jot na jot sax développé parce que <laughs> dafa mel ni euh, dafa dafa pare booy bi euh, mbay association bi kañ ko ko créé. bon association bi ñu ngi ko créé le 19 avril 2019. Mhm. autant temps monsieur le maire Idrissa Diallo moo nekkoon maire commune euh, de Dalifort. ñaanal bu ah, au passage tamit di mhm. mhm. mi nga association mhm. euh, le jour où nous avons créé l'association, nous avons dit association bi biñ ci l'association. man ak euh, samay morom. ñu ñu ne Dalifort dafa manqué. côté social. du côté culture. pourquoi pas nous créer une association. Euh, dénommé ko parcours events. Mhm. mais manam pourquoi ce euh, nom parcours events. bon, voilà loolu dina ci mhm. parce que ce nom parcours events. parce que nit ñi ku nek ak ni ngay véhiculer sa message. Mhm. mais ñun avons beaucoup di véhiculer suñu message ci à travers les événements. organisation. événementielle. ñu ñu suñuy message dañ koy dañ koy dañ koy jàllale autrement mhm. Mhm. par rapport ak ni ko nit ñi di defee mhm. nit ñi bu ñu bëggee jàllale seen message dañuy dem ci télé wala ñu dem ci rajo wala ñu dem ci ci ci ci ci ci mairie wala ñuy dem ci ay euh, jàkkaarlu koy autorité ñun ñu ne noonu nañ ko defee autrement mooy lan dañuy tëgg ay événementiel que ça soit mu nekk danse que ça soit mu nekk théâtre que ça soit mu nekk euh, musique ak lu lu les dal mhm. léegi ci biir loolu. Ah, danseur bi dina véhiculer message am. Euh, euh, kii joué théâtre. mais mhm. de dina véhiculer message am à travers ci théâtre bi médias def. Mhm. ñun tamit en tant que euh, membre association ñu tamit dinañu may ñu nous véhiculer suñu message. ci ci ci événementiel yoy nous ñuy organiser. parce que ñun association yi waruñu mën a toog rek di xaar autorité bi wala mairie bi di ñëw nous ñun. ñun tamit dañu di di dem ci mairie bi manam mhm. di len wax ni ni lañ gisé ni lañ ni lañ xalaatee mhm. nañ bokk ñu liggéey ñu demandoo ensemble mhm. parce que commune bi du commune maire bi donc du commune de la mairie mais c'est la commune de toute la jeunesse d'Alfortoise, kon moo taxoon ñun bi ñu toogee ñu xalaat né amna lu fi manki parce que tamit suñu artistes yi ñom dañuy véhiculer message ci li nga xamante ne qui de di soutien di lettre de parrainage di di di jox autorité mhm. pourquoi pas une association nous, ñun nos propres propre nos propres propre fonds nous, y def véhiculer nos message mhm. ba nga ñoom dañu xam ne association yi nii kat dina ñëw ci loolu mbay dina ñëw ci comme bëggu yaa ngi naan da ngeen di bëgg a xeex affaire parrainage ak yooyu noonu um, lettre de soutien yeeg ñoom seen euh, mais da ngeen bëgg di seen i moyens pour pour pour di organiser seen euh, ñëw ci nga wax ñu kon xaalis boobu fan ngeen koy jëlee parce que <laughs> dina doy waar euh, Moussa l'amicale des de la cité idée bi fan la jógee. merci Didier Omzo bon l'amicale comme son nom l'entend sous-entend mhm. c'est des amis. Mhm.

deuxième troisième quatrième génération Nous ñuy faillir mhm. il faut nous aider à ce que nous ñu mhm. comment les aider mhm. il faut deux activités socio-éducatif socio-culturel Qui c'est boy. on doit aider nos jeunes frères di ont jox des cours particuliers di ont jox des cours de renforcement ainsi de suite ñun parmi nous y a y a pas mal de de ressources humaines bi mi donc c'est comme ça que l'idée est venue mhm. nous ne kon donc nañ amicale des jeunes de la cité mhm. suñu parlons ñu talk, essayer d'aider la jeunesse à ce que nous réussissions. Mhm. ñu réussir essayer d'aider nos jeunes frères à ce que nous mieux, mais dans le bon dans le bon chemin absolument loolu daal moo une idée bi nga xamante ni nekk bon aussitôt on a commencé à se réunir organiser des activités première activité bi ñu njëkk def cours de renforcement

alternation générationnelle Bingo dañ ko ok Malade, relève nous ne l'a pas assuré. mais l'association association yu bëri un mooy nekk on la accepté. Mhm. responsabilité parce que on a de 2002. Mhm. jusqu'à 2014 2015 2016 association nous avons au top. Donc mhm. de mais nous avons tu parles de 2002. 2002 2002 nous commençons. commencé. c'est très bien. 2002 nous commencé di encadré encadré nañ ay élèves yoo xamante actuellement ne suñu leen wanee seen photo ci événement yi da ngeen non non. sont devenus quelque mhm. ils ont réussi. ils ont réussi. dama les activités bo démé ci Facebook tu tap ci AJC rek. Mhm. avec ben fleur logo bi di nga gis les activités mi ngi mhm. donc ñu nekk ci. mais li ko faussé moy comme li ma wax léegi alternation génération et que ça a posé beaucoup de problèmes ak beaucoup d'associations là. ñun duñu assurer suñu relève tant que nous sommes fi mi ngi dox bu fait fi nekkatul du dox. donc mhm. c'est à régler c'est à corriger. Mhm. Euh, AJC fait par des des associations yi nga créé créé e FEDAF. ok fédération des associations de Dalifort. Mhm. AJC nous ñoo que membre déclencheur yi. ñu nag Baobab. ñoo créé FEDAF e donc par malchance nous sommes en tant que bandes amies di avons suñu xaalis du contribuer d'organiser organiser des activités weeru koor nous organiser. année scolaire nous organiser navétane ñu organiser tournoi ainsi de occuper les jeunes. Mhm. occuper les, occuper les, mais on a oublié de former. ok ce qui a poussé euh, l'amicale à ak échec ok mais l'amicale est reconnu. c'est très bien. y a des papiers. Ah, ok oui l'amicale est reconnu. mais bien sûr l'amicale, a 20 ans quoi, c'est tout. l'amicale est reconnu parce que le euh, mm, conseil conseil départemental de la jeunesse le conseil local de la jeunesse bii bii ñu ni ni AJC amicale des élèves étudiants. Mhm. Euh, wa Croix-Rouge nous nous composé. Nous mhm. moi je suis membre de conseil communal de la jeunesse. Mhm. avec les falundom Bamba tous les gens passent. C'est parce que l'Amicale a été reconnue. sur le plan administratif. donc nous avons l'amicale, bi nga xamante ne mais par malchance par manque de formation on n'a pas su assurer la relève ce qui a poussé l'amicale à l'échec et à un sommeil trop long. on va y revenir Nous ci ñëwaat parce que l'association association 20 ans de dëgg bu doon doom ju juddu heure bi war nañu tax soxna. sëy na oui kon sëy na bu yàgg donc c' est ça euh, euh, ci yow ñu eggal yi euh, association sànq da nga doon wax ni yéen da ngeen bëgg xeex li nga xam ne mooy ay parrainage ay joxe soutien mais am na association yoo xam si loolu ci dañuy amee li ñuy organiser seen i seen i programme yéen boo leen banniree loolu fan ngeen di jëlee seen i fonds pour organiser li ngeen bëgg a organiser. waaw loolu dinaa ci sawar a tontu. Mhm. parce que. pour rejoindre pour rejoindre tuuti ci à ce que sama euh, camarade bi Moussa. Mhm. li mu wax. Mhm. mooy association bu nekk da nga am sa say say principe. Mhm. am say objectif. parce que nous les associations nekkul ñun ñoo war a daw ci ginnaaw autorité bi. wala ñun nekkul ñun ñoo war a tamit dem chaque jour di leen di ñaan wala di leen bind ay lettres de parrainage. non non ñun war nañ mën a. dépassé loolu mhm. parce que tollatuñ foofu noonu mhm. parce que comme ni ko kii waxee génération 87 euh, ak génération 2002 y a une différence d'âge mhm. donc léegi ñu ne war nañ mën a xool beneen méthode méthode bi nag naka lañ koy defee boobu laa yàqamti xam méthode bi voilà méthode bi naka lañ koy defee mooy ñun dañuy defar suñuy carte membre di di di xool tam chaque mensualité membre bu nekk li ngay cotiser day am day am comité directeur am wala membre de bureau yi kese ñooy cotiser wala wala muy demee noonu quoi. am na lépp am na comité de directeur. waaw am na membre de bureau. ñan ñooy cotiser par mois. Euh, tous les membres. ñëpp comme carte de membre sax mois da ngay joxe. tous les membres. mbi loolu naka na organiser de. waaw mais xam nga boo amee gëm-gëm ak pas-pas gëm ne man lii ma nekk man maa ko war a dundal du moom moo ma war a dundal. vous êtes ñaata ngeen si actuellement. Euh,

événement yi day am wala. événement yi am na yoo xamante mais actuellement. Hmm. en vue que la situation dont nous vivons. Hmm. amatuñu lieu bo xamante ne Dalifort dans la commune de Dalifort amatuñu lieu. salle des fêtes lañ amone waaw amatuñ ko. salle des fêtes bi salle des fêtes bi tijjiwul. salle des fêtes amatul. non dina ñëw ci loolu politique bobu nañu ci wax. Ah, waaw après salle des fêtes bi amatul. amatul. Hmm. amatuñu parce que depuis 2021 mille waaw ba légui amul ben association bu la mën wax ne mun na dans la commune de que ça soit mu nek réunion wala mu euh événement que ça soit soirée que ça soit ak nu ci doon ceci dit que salle yi ñu wara a yëpp dafa fermé actuellement lépp lañ fermé mais lu toll ni la commune de Dalifort mhm. foyer mënuñu ko am am nañ foyer am nañ foyer mais foyer bi ça sert à quoi foyer fonctionne mais foyer bi bu ñu foyer c'est pour les jeunes non. foyer est-ce que fonctionne wul nekkul di fonctionner. fonctionne de depuis combien d'années. non yow eu yaa may laaj man ma ko laaj depuis 2017 bon, les foyer bi kenn mënu ci am accès. Hmm. jeunesse bi mënuñu ci am accès. depuis depuis lañ depuis quand parce que bi fi Idrissa Diallo que, boobu foyer bi ñun amoon nañ accès. yéen dem ngeen laaj lu foyer bi doxul ñu leen. mais dem nañ mais lu ñu wax dañ non il faut que ñu jeunesse bi ñu regrouper wu waxtaan. xam nga buñ dajaloowee seen biir après ñu ñëw mairie ba après ñu ñëw wax ne mairie bi lii la lii léegi léegi léegi kan mooy coordonné pour jeunes yi dajaloo waxtaan kan mooy coordonné loolu kan mooy coordonné ñoom délégué wuñu kenn ku la ku ku yónni pour mu convoqué leen mais am na benn commission bu bu chargé wu affaire jeunesse loisir et tout à la mairie ñooñu mën nañu leen woo yéen wax leen exactement approché ngeen ñooñu yéen approché ngeen ñooñu duñu informé kenn xam nga tey dafa war a nekk pilote maanaam moom mooy diriger. Mhm. moom meilleur yor vol les mhm. léegi ñun association yi ay passagers lañ. ñoom ñooy diriger toog seen biir vous ba trouver le consensus trouvez trouver le consensus après voilà donc ko génn ci ci ci euh, commune bi joxe information qu'on a fait toutes les associations mën a xam fan la ñuy mais ak naka la ñuy mbay mbay loolu dafa yomb man dama jàpp ni boo dafa bëggee toog di xaar. mairie organisé wu xam nga ñii pour ñëw indi leen information loolu boo leen bu toogee bañ leen indi leen information da ngeen di perte man dama dama yaakaar ni war ngeen mën a jóg dès à présent ngeen dem rencontre commission bi yore jeunesse et loisir wax leen exactement seen activité yi ngeen bëgg dérouler ci 2023 2024 bii ñu nekk nan ngeen koy dérouler ak ñu ñu am dara lu ñu teg seen loxo parce que da ngeen soxla salle da ngeen soxla case foyer da xam si au moins war ngeen fa mën a organiser seen événement je, ne parle pas en tant que par rapport à l'association Parcours Events mais association on nga xam ne une on une une une du une dégg parce que parce que ok mais association dafa am comme Moussa d'ailleurs On dafa dafa mhm. mais c'est ça objectif mhm. de bokk unir tous les membres mhm. animés d'un même idéal mhm. mais vous faites bu parcours évincé day ñëw rek pour pour intérêt boppam kon jarul parcours évincé bi absolument parce qu'il y a d'autres associations Il xam a nga leen bëgg boot yóbbaale leen voilà te man si sama gis-gis euh, ak gis-gisu membre parcours events mooy toutes les associations am nañ objectif yi ñoo xamante ne ñoom ñoo ko ok parce que tu as créer un liens d'entente. Mhm. da ngay jéem participer ci ce développement localité. Mhm. avant tout. c'est Moi, ma ni ni sama objectif. mon mhm. objectif parcours events. ni mu amee idée pour participer au développement la localité il y a un sama compatriote bi association association euh, association. objectif am tam ci mu participer ci développement localité absolument kon tey ji su ma ci au nom de parcours events je mel ni train de yóbbu rek sama bopp. ok mais ñëpp nga bëgg a boot pour dem kaasal leen. waaw ñëpp ñu kaas parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn bon FEDAF à na fi c'était pour ça FEDAF c'était la fédération des associations de Dalifort euh, man à l'époque man dama doon dama dama si doon kaas parce que ñun les animateurs de Dalifort euh, association bi dañu adhéré FEDAF mais FEDAF bu a une réunion sax ñun dañu convoqué ah loolu moom dama koy wax xuma kan déjà en tant que coordinateur des des animateurs de Dalifort euh, xaw ma sax kuy président FEDAF.

Ah, parce qu'on a on a on a faussé politique de de de de jeunesse. Mhm. dañ ko faussé. au niveau local au niveau local avons faussé une politique de jeunesse. nous les personnes wala. la localité le maire et équipe parce que bon du temps de Idrissa. Mhm. il avait fait des efforts. absolument. parmi ces efforts rien à maintenir, ne defoon mhm. ça nous a conduit à la faillite mon mon problème tout parce que. Mhm. c'est-à-dire ñun jeunes association amicale. Mhm. ensuite mhm. il faut nous savoir faire la part des choses. ok nous sommes des associations et nous sommes pas politiques. très bien il faut me l'air ah. bon moi je suis politique chaque que ku ma gis écran d'aller voir les xam ne man politiquement j'ai mes activités politiques mais j'ai mes activités sociales. absolument et je ça gox sama m'a yité. ñuy commencé émission l'émission, lay saluer une affaire bi nga avez ne côté d'Inédit. ji. vais vous la si doon encouragé bu avant commencer sama gox sama yitte. Mhm. comme le concept. d'émission euh, bi émission bi nekkee. Mhm. c'est-à-dire su ma yitteelee sama gox. damay jël sama politique ma def ko jàpp politique ça c'est pour sama gox là déjà si je le fais mais il faut savoir faire la part des choses. absolument la fédération des associations de Dalifor, mi avons dorti dox élan extraordinaire. Mhm. mi avons des subventions venant de la mairie. mairie nous ngi doon boole ak ay partenaires. je m'en cité. à mon bâche. chaise estrade locale et tout mais dañ politiser en fin de compte. Mhm. ce qui l'a conduit à l'échec montant le défunt maire bi mu démé mhm. dafa yóbbaale xorom renseigner ak tout ce qui est gestion. de la fédération parce que wa parce que ay gossam ñoo pratiquement. mais li tax mu tek ay gossam ci ci ci ci. lu ay gossam la tek c'est-à-dire euh, motax tax la part des choses. Mhm. dafa beaucoup de situations dañ leen uniquement pour après ñu mën am le pouvoir. ok man dem na élection deux fois pour présider li nga xamante la fédération des associations de l'école nous parce que ministre des institutions sont ko créé fictivement pour nous préparer pour protéger pour défalser le président politiquement parlant <laughs> ce qui a conduit à l'échec là où je vous parle Abdoulaye Mbodj le président de la fédération de Dalifort FEDAF <laughs> depuis plus de 7 8 voire 10 années fédération bi retour. depuis 10 ans mon mooy là. président Oui. depuis que mon Fassou Thiaw au dem moi, président bi man mii ci bureau de la bokk aussi une autre chose les nga la gestion de la case du foyer de Dalifort fédération de recevoir le maire de euh, Diop qui fi actuellement joxoon gestion mhm. moi je vais pas du bureau je suis le secrétaire si je ne me trompe pas mais depuis 2016 jusqu'à nos jours mhm. le 5 la ñuy la affaire bi pare le 5 ay 10 millions le 5 mi ngi fi ñëw <laughs> à quand l'achèvement <laughs> ben des travaux ba nga ne ça vient pas directement du poche de la mairie mhm. c'est des partenaires Pacasen non C'est quelque chose autofinancement la léegi lan la qu'est-ce qui bloque. ok lan la. bon politisation des des des associations bu ci mel ni FEDAF. E man dama ci dama ci dama ci bëgg indi ben ben ben leeral bu ndaw. Euh, par exemple bi wax euh, comité de de de gestion ba mu wax pour casse foyer bi. Ah. man dama xëy rek dégg ñu ni comité de gestion bi euh, nommé nañ président. Euh, nommé nañ euh, Émile Thiaw sax ci candidat yi la woon mais après dañ ko dañ ko gagné premier tour yooyu yëpp dama koy mais en tant que des acteurs yi nga xamante ni dañu yor ay association nekk Dalifort yooyu dama jàpp ne soo amee ci dëkk bi te yëguñu ko rek mooy kon am na nu mu demee euh, Didier moo tax ma ne politique de la jeunesse bi dañ ko faussé tu parlais tantôt que ne ana la chargé de la jeunesse et des loisirs au niveau de la mairie organiser tournoi naa tournoi américain <laughs> alors mais tournoi de tournoi et que ce qu'il devait faire la mort, waroon sa vraie mission. Mhm. essayer de planter des associations et des associations au niveau des quartiers comme ni nga un conseil de quartier. Mhm. teg benn conseil de quartier teg da ngay association ay association mhm. sportive culturelle si yaa comprendre sociale socio-culturelle éducative Nous, dañu lay dimbali. ok il faut nga un interlocuteur sur chaque domaine. ok par contre, événement événementiel mais essayer de les aider sur le plan événementiel. Dalifort mhm. c'est dafa riche en culture. ok ñun éducation socio-éducatif la ñuy def jox ñu ñu def socio les élèves enseignants dégg les élèves étudiants. Mhm. mais c'est des mais mais il peuvent prôner ça. oui ils vont aider donner des cours on les ñu renforcer ne gis naa temps yi ñu jëlaat fal seen bureau ainsi de suite nangam sàng. Mhm. mais tous ces sujets dafa war a dox. mais MHC. MHC mais amical yi dafa war dox mais nous dox ak seen i loxo c'est que la mairie doit faire quelque chose ok motax ma suñu politique de jeunesse bi côté boobu dañ ko faussé je sais pas kan moo ko sax ma xawma mais waro na nekk quelque chose bo xamné parce que c'est très très très important. Mhm. si saa comprendre ñun en tant qu'association association AJC euh, pour rek ñu mëna de euh, sauver waat l'amicale. amicale AJC. Mhm. man benn acteur rek glisse gis. c'est-à-dire former d'autres jeunes. Mhm. les conscientiser après ñu jox leen le relais. ok parce que. Euh, jeunesse bu nek dafa mission soit tu l'accomplis soit tu la trahis. Mhm. Et da nga accomplir mission. Mhm. donc ñun gëm personnellement dama japp né on doit éveiller nos jeunes frères tous tollu piloter les associations. Mhm. entre 20 ans ou 30 ans. parce que nous nañ fi temps d'âge gis bari nañ fi. éveiller len jox len ñu organiser nga wan leen bon droit chemin ba pare ñu bañ def comme yow. Mhm. ñu former le le ñu xam ne derrière. Mhm. su ko defee mu nekk un relais. absolument parce que tout ce qui peut nous aider. nekk fépp yalla rek moo mëna yalla rek moo souvent da ngay gis gars yi dañuy jàpp benn affaire bëgg ko téye ba déwalé ak mom té loolu mo fa war a euh, association yu bari hein ah, je peux citer olympique de marché olympique de marché ça s'est passé comme ça olympique de marché sax ñun ancien yi defoon nañ transition bi jox ko suñu jeune frère mais par la suite amul continuité si ñom lay dal rek. après mu mu nax saay donc euh, ak yeneen association mun naa tudd fi Réal Réal amoon na fi association bu am doole waaw mais Réal kenn déggatu ko yaa benn association bu ñuy wax jàmm dee jàmm dee aussi association boobu xamatuñu nee na fes ak yeneen ak yeneen yu nga xamante ni kenn en fait il faut il faut ñu ñu ñu xam ni association yooyu ñoom ñooy doxal dëkk ñoom ñooy teg benn projet dem ci mairie bi pour mu accompagner leen ci mu ñu mun a développer li wax ak waa autorité yi par exemple pour seen association boobu noonu ci la mu daan liggéey junj nga ko mais nan la ñuy def pour mu dellu si waat ci niveau bi nga xamante foofu la nekkoon. lan la leen autorités yi mën accompagner. merci Ongzo. comme si li nga wax nii rek euh, dina ma canal bi dina nekk canal boo xamante ne yaakaar naa ne dina ma permettre ma passer le message bi nga xamante ne temps temps da ne bëggoon naa ko jàllale au niveau de local. Mhm. c'est-à-dire politique baax na. Mhm mais gestion de la mairie dafa bëri ay couches au xamante ni da nga ko war a laal case foyer femmes yi ainsi de suite mais la jeunesse la jeunesse encore une fois xam lu ñuy jàppale pour ñoom dañu dañu war autour de terrain rek wala autour ñu ballon du football et que c'est pas le problème c'est pas c'est pas là où le bas blesse mhm. Dalifort dafa bëri ay dérivé Dalifort combien je parle mhm. dafa bëri dérivé booy ñuy wàcc raay bi pour les aider là il faut convoquer les associations mhm. au, niveau de la mairie, mhm. les aider à accomplir leur mission. Très bien. Mais que moi, il faut les écouter. Ouais. Invitez la jeunesse. Faites quelque madame. Nous organisons bien, euh, comment je peux le citer, madame, euh, comme le disait, conseil de la jeunesse. Mhm. Nous un conseil de la jeunesse au niveau de la mairie. Okay. Mais il y a les conseils, les conseils départementaux, les conseils non loolu ça marche plus. conseil départemental conseil communal conseil national de la jeunesse c'est trop politisé ku ci xaar doo dem. léegi léegi tey commune su ko créer nan la créer commune créer conseil de la commune. Inviter chaque quartier jeune yi fa différentes associations. mais ko politiser. non non peut-être bon il faut pas l'accepter nous on va pas l'accepter. mais à la mairie ñuy convoqué souvent bu ñu convoqué soo nekkul doomu chef de quartier ni ko jabaru chef quartier souvent duñ la convoqué de. loolu mooy loolu mooy raté loolu mooy raté loolu mooy raté vision bi. waaw mais léegi su fekkee da nga wax ñu con def conseil communal tamit est-ce que duñ ko trier noonu. je les invite à faire de manière de façon à ce que. waaw ñëpp ñi nga xamante ne c'est des porteurs de voix association sportive. waaw ah, man de kenn du maanaam tout ce qui est OCB. man de kenn du ma woo porteur de voix. déjà tout ce qui est OCB xam nga ban année ñaata yoon kañ la ñuy woo OCB yi. Hmm. Euh, subvention ba subvention te ce leen neex rek la ñuy 100 francs woo association jox 20 000. auparavant suñu association yu njëkk ay 10 000 5 000 Merci merci Moussa. c'est ça si perspective après nga jaaree fa tàggatoo. incha allah waaw li association euh, Parcours Events Elle a ay soirée à but lucratif def entrée par exemple à dîner à gala ak yu ni mel. Mm-hmm. Euh, loolu ngeen population au niveau local maanaam def 5 000, 10 000. nit ñew dug mu fess tel ñun xam lan mo jëgëwaat ci caisse bobu delwaat ci population bi lan nga ñu ci mëna tégal baram ñu xamni li parcours events boko defaat ci biir dalifor deug la amzo mhm. pour un peu revenir en arrière mhm. parce que on a que quelques minutes hein gaay ngi yak sama nopp yi di wax ni gaaw len ce qui différencie mhm. entre notre association et les autres associations parce que nous nous sommes apolitiques mais comme toutes les associations. Hein. j'ai bien précisé. Ça je suis. moi je suis apolitique. tous les membres de l'association parcours Events. Qui politique du apolitique. Qui politique du bokk non non ah bon parce que vous moi, mooy li ma la wax léegi lu différencier a association mhm. même pour un membre ou deux membres dañu dañu beaucoup de partis politiques. ok. comprendre Les bonnes associations. association mhm il y amé fo far kenen benen membre amna fenen mhm. bu da nga bëgg imposer association bi mhm. woné né man fi la far kenen tamit droit woné né man fi la far waral association mhm. parce que Dalifort euh, au temps d'Idrissa Diallo y avait euh, plus de 21 associations ay jamm hein? olympique Marseille judo en euh, pagaille en pagaille je sais booy lim da ngay fanaan fii waaw. voilà mhm. léegi nag ñun loolu lañ comprendre. Mhm. mooy association yooyu lan moo leen rey. Mhm. bala ñoo créer suñu association. dañoo toog xool association yi lan moo leen rey. ok léegi nga xam ne ñun bu ñëwee loolu du ñu rey parce que association yu bëri dañ fi nekkoon mais dañoo mbubboo woon turu association mais association politique la ñu woon non pas tout le monde mais Youtube là là. parce que pour les associations olympique de marché euh, dama leen di tontu cas. parce que moi j'étais comme trésorier mais association olympique de Marseille amul amul amul woon politique franchement. il y avait pas amuñu woon candidat bokk ñu fenn ay jeunes footballeur lañ won ñi football créé marche ñun mom loolu ñu doon waxoo ñu sport mom waxo ñu. waaw ñun ci non lañ do doxee. léegi ñëwal ak man ci xaliss bobu ngeen jël ci population bi mbi ko ci wax. waaw no fa lay ñëw. ay wax ma fa fa lan moy delluwaat ci ñom non foofu lay ñëw parce que moy li mo la rek parce que association yu beuri bu politique duñ am fond. ok wala bu un politique duñ am fond pour mën

muy dugal fond mbii tontu ma lan mooy delluwaat ci askan bi amul kenn ku nekk suñu mais lan mooy delluwaat ci askan bi comme xaalis ngeen ngeen ngeen ni waaw retour ñoom waaw li ñuy def si ñun waaw loolu la ñuy jëlaat delloowaat leen ko comment ci lan la nga ma mën a jox loo joge ci parcours Evans delluwaat ci population bi voilà waaw parce que tey jii parce que Moussa wax na ma fii dañ doon former seen jeune frère yi dañ jox ay cours au moins loolu lu jóge ci association bi la delluwaat ci ci population bi euh, peut-être def ngeen ay reboisement peut-être yooyu yëpp mën na am yooyu jógewaat na ci association bi delluwaat ci ci ci population bi yéen lan ngeen moom mën a defal wax na ci parcours Reverse delluwaat ci population bi waaw parce que tëgg nañ fi pas mal de d'événements waaw lu ci mel ni basket lu ci mel ni soirée lu ci mel ni dîner de gala waaw lu ci mel ni kaay wane sa talent yëpp dugal xaalis yëpp def nañ ko waaw mais lépp bu ñu ko defee lu ci ëpp ci plein air lañ ko defee. amul woon entrée amul dara amul entrée amul dara. amul soutien amul parrain amul dara. amul dara. ok kenn jàppale waaw ñun ñooy avant kenn di ñu jàppale ñun ñoo njëkk a def. waaw léegi. waaw léegi bu ñu defee di nga ma tontu de. waaw xam nga lu ñuy def. parce que xam nga nee naa la sànq si suñu euh, objectif. waaw bokk na ci. promouvoir le talent des jeunes à travers des actions socio-culturelles. ah ok léegi donc loolu mooy delluwaat ci ci askan wi. léegi nag xam talent day mourou que ça soit nga danseur théâtre que ça soit nga mhm. chanteur xam même la buñ la événement mhm. trophée ñun et la suite ça sera quoi ci artiste bobu lan mo da ngeen après dina am suivi pas. ko que ku ci euh, Nabou Boy Nabou Boy parcours events événement lancé ok

Dragon booy boobu ñun ñoo ko njëkk jox micro mu rap mu ñoo jël première édition euh, Parcours Events moom moo njëkk a jël trophée bi mhm. ba légui ñun ñu koy toog muy dem ba tay ji wa fukkeen ko récupéré nañ ko bëgg ko produire c'est très bien c'est très bien c'est très bien bi de toute façon loolu moy rôle association bo boo ci ko ñu ci da ngay sooy jël ci nit ñi day am lo xam ne day delluwaat retour dama ko don wax Moussa Sank nee naa ko ñun amuñu luñu tabaxé yak amuñu luñ tabaxé dispensaire pour le moment mais di jëlaat ay affaire muy delluwaat ci jakk bi di delluwaat ci euh, case de santé bi yoy dafa dafa daf boo pharmacie jënd fa sa ñaari garab dem may euh, dispensaire bi boo rombee basang bu bax ci jakk ji nga jënd yóbbaale parce que dama ko gis mu gàddu ay affaire yu ba am solo donc c'est très important pour mu apporter ko li nga xamante moom mooy koñam Moussa ce ce ce perspective actuellement ci sa association bi lan moy lan lan nga bëgg actuellement ni def ko en 2023 fin bi ñi ngi dem 2024 voilà merci beaucoup Je vous déjà pour commencer moi mhm. renouveler trop bi. remobiliser les gens. surtout surtout. Je jël la voix, bi nga xamante moment emprunté pour réussir des activités comme les ma euh, déjà on s'est autofinancé nous tout financé sur le bord très bien parce que nous avons déjà commencé à nañu liggéey. Mhm. tane woon On mhm. organiser l'introduction avec euh, la CNTS ok Sans transition sanguine. organiser avec un ami. nga avons ñoo nga c'est un pharmacien. Tidiou que je remercie de passage Mbaye xam na ko ñu ñëpp ñoo màggandoo ñu yarandoo mon co sama xarit la ñu defandoo aussi bu seen dóor absolument doit être membre de la de parce que ñi fa nekk ñoom ñoom morom lañ Tidiane mhm. dafa dem génn nekk ay diplôme nekk pharmacien ñu doit proposer de faire des consultations gratuites indi ay pharmacie c'est excellent on l'a réussi c'est excellent c'est excellent chaque année dañuy def li nga xamante mooy clôture de fin d'année mhm. réussite ci seen étude xale yi. ñu primer leen c'est bien jox leen nga xamantene mom moy mooy. Euh, encourager les autres. Euh, jox leen fourniture pour année bi nga xamantene étape suivante bi nga xamantene ne dem. toutes ces choses là dañu leen ko wara indi indiwaat. Mhm. té pour man c'est ça. c'est bien pour aider la cité il va falloir que ñu indiwaat do mhm. la mosquée durant le mois de Ramadan. Mhm. ñun ñoo koy jox li nga xamantene ne moom mooy amicalement koy def di enchaîner c'est excellent c'est excellent c'est excellent c'est

mais c'est déjà des gestes ne mais c'est toujours les anciens qui ont def ba c'est toujours les anciens qui koy def parce que pour voilà rendre à César ce qui appartient C'est c'est excellent c'est excellent C'est excellent donc euh, C'est bien c'est bien de façon li ngeen mm. def am solo Moussa euh, Mbi aussi li ngeen def am solo wax dëgg content kontaan nañ ci ci émission bi euh, Mbi ton dernier mot la lay doon lay tàggatoo. waaw Omzo di wax ne association yi bon soxla nañ ku leen appuyer. Mhm surtout waaw soxla nañ ku leen appuyer mhm. mais appui bi laajul association yi di daw ci ci mairie yi parce que mhm. toutes les associations sont apolitiques mhm. toutes les associations sont apolitiques d'accord nag membre yi ku ci nekk am na far am na far nga waxoo nga bañ ko wax am na mais bu ko impliqué sa biir association parce que association yi dañ ci bëri woon torop torop torop torop mais wane féete moo tax association yu bëri dee merci waaw te bëgg nañ tamit Euh, foyer Dalifort ñun parce que amuñu fenn fu dul Dalifort. dëgg la waaw ah, surtout lancer ce message. parce que foyer Dalifort pour jeunesse su Dalifort. Mhm. foyer Dalifort pour nekkul pour ay bureau ku mhm. bëgg bureau nga dem nga am feneen foo tabaxee bureau. Mhm. mais foyer bi c'est pour la jeunesse dalifortoise. de grâce nañu ko dellool. association mais mii comité de gestion bi day am bureau de. ci biir bi. waaw mais xam nga tey jii. d' accord loolu d' accord mais waxuma bureau. ku jóg rek bëgg fa ñëw installé bureau am. maanaam bureau mairie yi. dañuy bëggul indi foofu. ci foyer maanaam bu bureau yi doyul mairie dañuy bëgg tabax ay bureau pour parce que parce que dafa am na muy doxee. <laughs> comprendre naa la. léegi fait léegi léegi léegi yow looy tàggatoo exactement concrètement. waaw man li may tàggatoo mooy tamit di di di la remercier. merci ci euh, invitation bi nga ñu invité. Mhm. yow ak waa. Daf Vision Daf Vision. Mhm. gis nañ seen taxawaay. sa dara ñëw leen lu dul seen gox mhm. mooy comme ni nga ko tuddee rek sama yitte mhm. mooy sama gox mhm. waaw di ci am contentement bu baax a baax a baax mais association yi war nañ mën a mën a mën a bokkaat ndey bokk bàyyi parce que fan yee dama doon tooñ waa FEDAF e di leen tooñ FEDAF existé tout mais ñoom nanguwoo ñu ne existé tout hmm, la bokk de si si non mais mais l'association FEDAF euh, e n'existe plus ok amatul. parce ah. que am na benn jour dañ nek maire ba maire ba lañ tok mhm. boobu François Xavier Neymar moñ ñu fa woo toutes les associations. Mhm. ñu ñoo fa di tok di wax mais un membre de de de l'association FEDAF. E mhm. fa lañu fekk ñoo ne xaw lo leen di réunion mais FEDAF e deewul ñom japp nañ ne ñun dañ ñoo pour ray FEDAF parce que gis nañ bi parcours events. gis nañ kii mu nek à lycée gis nañ ci mu nek olympique de marché ñu japp ne FEDAF e lañ bëgg ray ok après ñun lolu

15 fois de pour achever les travaux de nous sortir en un jour. C'est trop. C'est trop. Monsieur le maire je te lance un appel. Mhm. Il va falloir revoir les gens qui ont politique de jeunesse. Je ne je sais pas actuellement kan il va falloir que mu bosse ci nous baax. Mhm. gisuñu bopp suñu bopp nous en tant que jeunes surtout les OCB. Mhm. jusqu'à présent nous nous jot li nga xamante ne mooy la subvention des associations des ASC et que xam nga donc je te lance un appel sur ce plan Essayez de revoir votre politique de jeunesse la jeunesse fait partie de, la, de Et 80% de la commune de Delfort sont entre 10 et Merci beaucoup. merci beaucoup Moussandir, président AGC merci beaucoup Ambi président euh, de président parcours Events nous sommes mbégte contents de vous voir, doon présenter l'émission de la xamante ni moom mooy euh, sama gox sama yitte euh, les mercredis nous leen koy de émission de kon ñu wax ni ñaax waa Dalifort surtout waa Dakar waa Sénégal yëpp dem leen ngeen abonné ci chaîne bi parce que chaîne bi mooy chaîne bi wóor muy Daf Vision comme ni ko sama frère yi waxee ñu jàppale Daf Vision jàppale bi du lenn lu dul ngeen dem rek abonné dem leen ngeen abonné ci chaîne bi euh, activer cloche bi ba nga xamante ne dara du leen ump euh, sama gox sama yitte dinañ delluwaat ci seen beneen numéro ak DJ Omzo ànd ak waa Daf Vision Channel jërë ngeen jëf